ci misaal pour wax la rek di la ngir wartoon taxaw yàlla wax na ni ñu war a ni ñu war a jàppee ci alxuraan te yàlla ni waxee ne war nañ ko jàppee ci alxuraan ñeenti ngir yëpp d'accorduñ ci te loolu ko doxal te ñu ne la jàppoo asalaamaaleykum euh, gis ngeen vidéo boobu lu taxoon ñu dugal ko mooy fan yi am na benn vidéo bu def boo xam ñu ngi ciy wax ne ni ngeen jàppoo baaxul bi ñuy wax ci li nga xam ne moom ngeen di tuddee yéen sangu farata li taxoon ñu leen li ngeen di jàppoo baaxul mooy li nga xam ne moom la kooku wax nga xam ne yàlla dafa am lu mu jàngale ci njàpp mu nekk lu leer nekk lu simple ay nit ñëw wax ñu leneen ñu wan ginnaaw li yàlla wax topp li nit ñoo ñu wax loolu nag ngeen jàppee ko diine ndax loolu mu wax loo xam ne li mu wax na ñeenti ngir yi d'accorduñu ci faaw ngeen xam ne ñeenti ngir yooyu muy wax ci biir ahlu sunna wal jamaa ci lañu nekk te yàlla moom diineem islaam la tudd ab téeréem moo koy jàngale képp koo xam ne gëm nga yàlla te muy dëgg ca yow la war ca yow mooy la mu jàngaleel boppam yow nga topp loola lépp loo xam ne ay nit indi nañ ko te mu wuuteeg li yàlla jàngale képp ku topp loolu ku ne yow nit ñooñu danga leen ni bokkaale ak yàlla ci loolu nga xam ne yaa ngi koy topp te nekkul lu yàlla jàngale waaye ñoom ñooñu ñoo ko jàngale kem li nga xam ne moom la yàlla di jàng li muy wax ne am lahum shurakaa'u sharahu lahum min ad-diini maa lam yazam bihillah wala ko da ne am ñu ngeen di bokkaaleel ñoo xam ne dañuy yoonal ci diine loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal yàlla li mu joxe ndigal mooy li nga xam ne moom la digle képp koo xamee nag maanaam bëggoo say jëf yàqu képp koo xam ne bëggoo bokk ca ñay perte ëllëg li nga xam ne moom nga war a def mooy fexe ba dëppook li yàlla jàngaleel boppam ndax yàlla waxoon na yonent bi ne ko wala xad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin yàlla wax na yonent bi ne ko maan ci dëgg-dëgg wax yu nañ mu jëm ci yow ak ci ñi nga xam ne ñoom ñoo la jiitu ne soo ma bokkaalee yow say jëf danañu màbb te da bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàqule kon li nga xam ne ay nit ñoo ko jël dugal ko ci diine ngeen jàpp ne ci la bokk te su ngeen delloo ci téere bi yàlla du ngeen koo fekk xam leen ne loolu su ngeen koy jëfee ak lu mu mën a doon maam su ngeen koy jëfee nit ña tëral loolu yéen a ngi leen ni bokkaale ak yàlla seen borom. moo xam ab àtte la moo xam ab jëf la wala moo xam xew-xew la lu mu mën a doon lu ngeen dem ci téere bi yàlla fekku leen yàlla jàngale ko. su ngeen ko toppee que tëral njàngale moomu moom ngeeni bokkaale ak yàlla seen borom te loolu képp ku koy def ku ne say jëf day màbb te ëllëg da ngay bokk ci ñi nga xam ne dañoo yàqu lii nag mu nekk loo xam ne ñun lii moo ñu tax di wax jamono bu ne ngir nit ñi bañ a sànq seeni jëf ndax dañuy wax naan kii ku ko topp réer ku ko topp nàngam li may wax rek lu yomb la yàlla ak gindeem mooy ak njàngaleem képp koo xam ne jàngal na la lu wuuteeg li yàlla jàngale dëgg-dëgg kooku mooy ki lay réeral dëgg-dëgg kooku mooy ki lay sànq. te kum ci mën a doon ku ne nag lañuy wax ñun àdduna du yàgg ba mu indi benn aaya bu ci weddi virgule mu nekk loo xam ne lu kenn ku ci ne mën a vérifier xam ngeen li ñuy wax njàpp li ci yàlla jàngale mu ngi nekk ci surat 5 aaya 6. yàlla dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu ida xumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulikum ilal kaabayni yàlla dafa wax ne ay ñi nga xam ne da ngeen a gëm su ngeen jógee jëm ci julli su ngeen jógee jëm ci julli mu ne na ngeen raxas seen xar kanam raxas seeni loxo ba ci seeni conc masaa ci seen bopp waxul sax nga masaa bopp ba yépp de déedéet massa ci seen bopp maanaam loo ca massa ci bopp ba rek moom tàbbi na massa ci seeni tànk ba ci doojoor yi mooy ba ci cheville yi lii rek la yàlla jàngale te massa mooy lan mooy sa loxo mu mel ni da tooyal diw ko comme li tubaab di wax oindre comme li ñuy wax almasih bi nga xam ne moom la ñuy wax Isa almasih ibnu Maryam loin léegi la ñuy wax oindre nga xam ne maanaam massa mooy diw diw ci seen bopp bi ruusikum wa arjulikum waxul sax nga diw bopp ba yëpp dana nga diw ca bopp ba ak ci tànk yi ba ci seeni doojoor lii la yàlla jàngale mu nekk lu simple li jiitu gaa yi ñëw ne leen maanaam indil leen ay complication ndox ma xaaju ndox yooyu dañ la koy jàngal ci wàllu fiq te ñi ngeen di tuddee ay boromi xam-xam wala ay imaam ay boromi ngir nàngam te dameen wax ne ñooñu su ngeen demee ci alxuraan taxawaay bu ñaaw lañu fa am mooy ñi nga xam ne ginnaaw bi diina ji ma tey ñoom ñoo ñëw di jël ay mbir di ko dugal ci biir mu nekk loo xam ne kenn du ko fekk fenn fu ko yàlla jàngale ndax gis ngeen lii ñu leen di wax nii ci jàpp mu ñëw ci alxuraan leer naññ ci surat 5 verset 6 te su ngeen demee ba ca suuf yàlla di wax ne maa yuridullahu li yajala aleykum min xarajin ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون yàlla mu ne moom namm leen a defal lenn lu aay li mu namm rek mooy laabal leen ak mottali ay xéewalam ci yéen mu ne kon mën na am di ngeen delloo njukkal yàlla namm leen a sonal de ñoom ñoo leen di sonal ndax fi mu toll nii dañ leen indil beneen xeetu njàpp njàpp loo xam ne su ngeen delloo ci téereb yàlla da ngeen di fekk mu wuuteeg li yàlla jàngale ñiy jàngale lu mel nii maanaam nit ki njàpp dafa am lu koy toj ça veut dire yow soo jàppoo njàpp loolu su tojul mën nga cee julliwaat beneen waxtu te yàlla bàyyi leen xel li mu wax yaa ayuha alladina amanu ida xumtum ila salaati faghsilu wujuhakum nga xam ne benn jàpp bu mën a doon bu ne jàpp sax dëgg-dëgg ku dem ci alquran ba mu mat yàlla julli képp la ko lënkaleen li ñuy wax naan ni da ngaa war a takkoo njàpp loolu gaal laaj la nangam nangam du njàngaleem yàlla de waktu ci boppam yàlla dane waxtu woo leen jëm ci julli na ngeen ko defi jàpp julli kep lay andal amul lenen ci alquran kii wax leneen ne indi preuve bi rek loolu moom lu yomb la te waxtu julli wu ne da nga koy jàppul su dogal na nga am ndox loolu ku jàng aaya boobu di nga ko mën sa benn jàpp nga julli ca ñaari waxtu loolu du njàngaleem yàlla wérul lii mooy toj njàpp du njàngaleem yàlla njàpp waajal la loo xam ne préparation la ci julli ji nga jëm soo jugee jëm ci julli rek dangay dem jàpp ji dem julli ji soo paree dellu ci sa yitte wuuteeg la ñeen daan jàngal njàpp lu toj nga gis yoo xam ne dañuy war a jàpp maanaam saa yu njàppoo ba pare njàpp la toj ñii nga xam ne dañuy najoo ko def yu kenn xamul yu métti yoo xam ne su ngeen demee ci alxuraan yàlla tegu leen ci loolu dara te lii yàlla jàngale nii ci njàpp su ngeen demee ci waa ahlu sunna ñoom seen bopp dañ leen koy faral di wax ne leen li yàlla jàngale ci njàpp mu ngi ci seen téere yi exactement ngeen wan ko ginnaaw ndax beneen texte boo xam ne ñëw na moom di wax leneen lu wuuteeg li yàlla jàngale may leen même su fekkoon da ngeen ci seeni texte rek li ñuy wax naan lii mooy farata ji lii mooy sunna si dama leen wax ne njàpp yonent bi suñ maanaam su dellu si waatoon njàppook leneen mën a doon benn jëf ñu naan lii mooy farata lii mooy sunna yonent bi su ñëwoon loolu yéen a ko koy jàngal bàyyiwu ko fi xamu ko moom li mu xamoon lan la lii la yàlla jàngale mu def loola te su ngeen demee ci seeni propre téere su ngeen demee ba ci téere Buxaari yi mooy yéen waa ahlu sunna yi su ngeen demee ba ci téere Buxaari yi xadis 5616 ni yàlla jàngalee njàpp noonu la ko indee waaye ñu ne xadis boobu Ali dañoo wax ne moo ko defee woon noonu ba noppi ne yonent bi nii la ko daan defee ñu wan ko ginnaaw ndax dañoo indi beneen boo xam ne dañuy wax ne Ousmane moo ko defee woon noonu di wane na xëy na yonent bi moo ko defee woon noonu mais ne yonent bi da daan def ñaari xeet yu wuute bii nag dëppoog li yàlla wax ñu wan ko ginnaaw topp boo xam ne dëppoowut ak li yàlla wax ngeen demaat sax ci li gën a garaaw ba ci téeréeb ibnu maaja ibnu maaja moom ca boppam moom moom it mu indi ab nettali ab ne loolu ay nettali seen waxu bopp la ñu ne yonent bi moo waxoon ne kenn ci yéen julleem du mat lu dul ne dafa jàppoo kem ni ko yàlla diglee seeni téere la wax kenn ci yéen julleem du mat lu dul ne dafa jàppoo kem ni ko borom bi diglee ba pare mu commencé di lim naka la ko borom bi diglee mu ne raxas say xar kanam raxas seeni xar kanam raxas say loxo ba ci say concu masaa ci sa bopp ak masaa say tànk ba ci say doojoor te lii ci seeni propre téere la nekk te lii la yàlla jàngale ci njàpp jàngalewul leneen leneen lu mën a doon lu ne ay nit ñoo ko jël jàngale ko yéen ngeen topp loolu nit ñi wax wan ginnaaw li yàlla wax kon dëgg-dëgg macha allah mbir mi nii la demee képp ku am loo ciy wax rek wax dëgg yàlla indil sa preuve loolu lu yomb la macha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum